internationale. abonné leen ci suñu youtube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. Sénéinfo. waaw maa ngi ñëw ma ñëw. dinañ la jox ay t-shirt. li ñu indi fii nag moo ëpp doole t-shirt. li indi fii kenn ku ci ne li nga ba ñëw fii. moo ëpp doole tichet ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax lii ngeen def dafa am solo mooy da ngeen di bokk wax ne keroog bi ñuy tekki buumu jaam keroog bi ñuy xeexal Pape Alé Niang keroog bi ñuy xeexal Sénégal keroog bi ñuy xeexal suñu bopp bi ñuy xeexal liberté de la presse maa nga fa woon ca buntu école Let's do it, let's do it.

19 heures foofu lu bëri dañ koy jël kàddu wax bu baax a baax kon nga xam ne moo waral bi leen manifestation ñu jege rek. ñaan yàlla kenn ku taxawaay bi ñaan yàlla fay marché bi mujjee def waaw waaw léegi ñu libéré libéré Libérez Libérez Libérez

ñu génn gis leen waaw comme nii waaw ma sœur waaw xeex rek ah. ah di gërëm nag Ibrahima lii sax libéré Pape Alé libéré Pape Alé libéré du bruit pour Pape Alé Niang libérez libérez les mains les mains libérez libérez je ne vois pas de mains libérez libérez libérez libérez chers confrères euh, chers confrères euh, un peu de silence s'il vous euh, de la parole ici ma qualité de peut-être pas le doyen de cette assistance parce qu'il y a Ibrahima Bakhoum qui est là. Mais en tout cas, je considère qu'aujourd'hui, je fais partie des doyens de la presse sénégalaise. En tout cas, le plus ancien journaliste en activité dans une rédaction aujourd'hui, c'est moi. Et en ce titre, je ne pouvais pas ne pas venir vous témoigner ma solidarité et aussi euh, mon engagement dans ce combat pour la libération de notre confrère Pape Alé euh, je viens donc vous transmettre à vous, la jeune génération, le message des anciens, un message que j'ai eu, euh, un message que je vous transmets. Évidemment, je ne peux pas le transmettre de la part de Babacar Touré et Sidi Lamine qui ne sont plus de ce monde. Mais c'est avec eux que nous avons mené les premiers pas pour la liberté de la presse dans ce pays. Ils ne sont plus de ce monde. Dieu m'a donné la chance d'être encore ici parmi vous. Donc du, euh, du de quatre mousquetaires de 1990, Laïbamba Diallo et moi sommes les seuls qui sommes encore vivants. Laïbamba, pour des raisons institutionnelles, n'a pas pu être ici. Moi, je suis ici pour vous dire que votre combat, que, le nôtre, que nous vous soutenons, qu'il ne faut pas baisser la garde, qu'il faut continuer la mobilisation jusqu'à la victoire totale, c'est-à-dire jusqu'à la libération de Pape Alénian. Dans les mêmes circonstances de mobilisation, nous avions eu en à mener le combat pour la libération de Madjambal Et ce combat s'était soldé par un succès éclatant. Et justement, le président Macky Sall était à l'époque le premier ministre avec qui nous avions négocié la libération de Madjambal Diagne. Il nous avait mis en rapport avec le secrétaire général du gouvernement, feu maître Alun Badar Sissé, que Dieu C'est avec lui que nous avions tenu une réunion qui nous a permis de trouver la procédure à introduire au niveau des tribunaux pour libérer Adjamal Diagne. Et grâce à Allô Et dans les 40 après cette réunion, a été libéré. On comprend d'autant mal le président Macky qui avait joué un rôle déterminant pour la libération de Madjamal Diagne, soit, soit celui-là même qui aujourd'hui emprisonne Papa Donc, vraiment, c'était juste un témoignage de la foi et pourtant jërëjëf doyen. Sagna jërëjëf doyen ci rappel historique bi micro bi ci waaw ñu fàttali rek ni ñi fi teew bari na. depuis l' école normale ba wax yenn ci délégation yi fi teew. que marche bi buñ ko réussir parce que ay sénégalais dañu ñëw ànd ak ñun. ñoo xamante ni bi ñoo bokk lu xeex muy liberté expression. waa sàmm suñu mbaatit di ñoo xamante ne bii préservation de nos valeurs ñëw nañu fi teew nañu fi ñoom nee nañu Pape Alé Niang da leen doon jàppale leen tabaxal sax seen ay daara kon loolu lu am solo la moo tax ñu teew bi ñu ngi fii euh, ki nga xam ne di Seydi Gassama Amnesty International mi ngi fii dañu jàppale ci combat bi waa article 19 ñu ngi fii waa Pastef ñu ngi fi. cameraman Clédor Sène Clédor Sène. Claire Vision ñu ngi fi. nit ku dëgg ñu ngi fi. coalition Sénégal ñëpp ñu ngi fi. waaw léegi li nga xamante ni ñoo fi teew SACCU du Sénégal ñu ngi fi le mouvement Lébar te jiital Aliou Aliou Aliou Sané ñu ngi fi la RADDHO taxawu Sénégal ñu ngi fi docteur Abdourahmane

Nous ne sommes pas des spectateurs là-dedans. Nous sommes partie intégrante de ce combat. Dieu merci. Euh, tout le monde rappelle la marche de 2004. demandé la libération de Madiambal Diagne à nous avions eu le privilège d'y prendre part en tant que membre du SAPIX. Je vous transmets euh, à vous, Assemblée, les salutations et les oh, oh, oh. encouragements de Dieu Cissé.

nous garde de reculer, que Dieu nous en préserve. en appeler à nos gouvernants. parce que il ne pas que quand on est dans l'opposition, on soit avec la justice, les grands principes, et qu'une fois au pouvoir, on oublie tous ces engagements. C'est même euh, inquiétant On nous dit que le pouvoir rend fou, que le pouvoir absolu rend absolument fou. Mais en tout cas, il serait bon que les gens ñu delloo ci seen xel qui reviennent à de meilleurs sentiments ndax nag jàmm gën lépp nag et nous on se laissera pas faire et on euh, euh sur vous pour prendre la relève nous avions eu nos aînés qui nous ont aiguillonnés à l'époque mener ce combat. Maintenant qu'on a, qu'on s'est plus ou moins désengagé un peu de ce métier, nous avons plaisir et nous avons espoir en vous voyant avec toute cette détermination pour, euh, je veux dire, protéger cette profession. Je disais à quelqu'un que profession bi amuñu lu dul moom ñoo ko choisir jàng ko sonn si. def si liñ si war a def taxawe li ñu war a taxawe kenn mësuñu yàpp du léegi la ñuy bàyyi nit ñi di décider de notre sort donc on va mener le combat ba fu mu yem rek ñu pour ñu euh, fu mu yem neex comme on dit pour ñu suñu objectif Pape Alé Niang nañ ko bàyyi mu ñibbi ci jàmm loolu la ñuy laaj te yaakaar naa dinañ ko am merci. Libérez Avec les mains, camarades, avec les mains, il faut le soutenir. Libérez Libérez Libérez Et voilà, nous remercions Moussa Ndiaye de Thiès. Il est avec nous pour la libération de Pape Alignan. Le mouvement Liberté Sénégal pour la libération de Pape Alignan est avec La FAC, la Fédération des acteurs de la communication de l'information du nous avons la présence de Tcham Tchernobokoum. la classe politique, les initiateurs de cette grande marche, Ibrahim Alissa, merci. Mamadou merci. Les anciens de la presse, merci. La CAP, merci. Les hommes et femmes de la presse, merci. Yolande Gaye de la RTS, merci. La presse publique, merci. La presse Merci les techniciens, merci les journalistes, merci. Tout le monde est là. Vive la presse sénégalaise. Vive la presse sénégalaise. Vive la presse sénégalaise. Vive la liberté de la presse. Encore plus fort. de la presse. Abibou Mbaye pour la suite. ñi ngi ci diis waaye suñu xol sedd na euh, la relève est debout nous sommes rassurés la liberté de la presse est entre de bonnes mains on vous soutiendra toujours. euh, que Pavaré soit libéré le plus rapidement possible. Vous êtes debout et nous sommes avec vous. Nous sommes à côté de vous. Euh, on parlait de Babacar Touré, il disait souvent, on n'est pas derrière vous, on est à côté de vous, on est avec vous, on vous soutient, on vous soutiendra toujours. Euh,

et aussi euh, euh, euh, Abdoulaye Ndiaga Sylla avait été arrêté pour le même motif de détention de documents administratifs arrêté leen les gens se sont mobilisés ba ñu génne leen donc le danger il est toujours là au coin de la rue il faut rester mobilisé il faut que la relève soit debout fi ma jeexale j'ai l'honneur j'ai l'honneur de présider le plus large réseau de journalistes de toute la CEDEAO. Ils ont un message pour vous, la presse sénégalaise. La, la, la liberté de la presse au Sénégal est le dernier rempart actuellement de la crise mondiale. Ils sont mobilisés avec vous, tout le réseau des journalistes de la CBAO est avec vous à mobiliser parce que le Sénégal ne peut pas tomber en tant que rempart pour la liberté de la presse et plus généralement pour la liberté d'expression. Gatchengalama, restons debout, restons debout, restons debout et que soit libéré par parler. Merci beaucoup. merci Abbas merci beaucoup. waaw waaw jaajëf waaye ne garab bu garab ci kaw lay fekkante kon Pape bu fekkee ñun dañoo bokk si ñu doon jàngale ci école yi mu doon jàng moom tamit fekk moo ko fa naam waaye nag après ñëw naa fa di fa jàngale loolu la mu tekki ne garab yi ci kaw la ñuy fekkante kon Pape Pape fekk nañu ci kaw xëy na sax léegi romb nañu léegi nag bu dee ba lii dal ko am na fu ma am na fu ma gis fii ñu bind fii je suis Pape ma gis na ji ay at ci gannaaw safi euh, li mu koy wax sànq en 2004 bokkoon na ci ñi doon wax je suis Madiambal Diagne donc li ñuy ñaan mooy bu fi kenn amaat di wax ne je suis x je suis y maanaam yii na yem fii parce que kat liberté de la presse dañu wax na ji moom mooy suuxat démocratie moo koy téye image bi li ma óor mooy pouvoir public yi kontaanuñ ci parce que naka nga mën a toog am réew bu ñu ooyee démocratie lu mel nii di fam ñu ne ab journaliste lañ jàpp journaliste bi du doon def boo ci àndee noonu la boo ci àndul noonu la ñu xam ne nag li ñuy wax ne menace à la liberté de la presse ce n'est pas seulement une affaire des politiques c'est avèrement tout le monde il peut y avoir parfois des cas où le journaliste est menacé dans sa sécurité et dans son travail par d'autres forces par d'autres groupes par d'autres lobbies c'est donc une question de dire La liberté de la presse ne peut pas être une affaire évidemment close, terminée pour de bon. Le combat, il doit être quotidien, le combat, il doit être permanent. C'est la liberté de tout le monde qui est concernée quand il s'agit de la liberté de la presse. On a parlé ici de Babacar Touré, je me souviens encore Babacar qui disait « Tout malheur qui arrive à un journaliste arrive à toute la corporation ». Et tout ce qui arrive à la corporation arrive aux médias. Et quand un seul média est menacé, c'est toute la liberté de la presse qui, est menacée. c'est la démocratie qui est, menacée. Donc c'est venu simplement que nous voulons faire de son travail de journaliste, pour constituer une menace contre toute la profession, contre toute la démocratie. Je dis, c'est pourquoi euh, certains d'entre eux sont mes neveux, d'autres sont en l'âge de ma, fille avec qui ils étaient à lycée, etc. Mais tout ça pour vous dire simplement que dans le journalisme, il n'y a pas d'âge, mais surtout, il n'y a pas quand il est de défendre, la liberté de la presse. Voilà raison pour laquelle on est là. loolu lañ fi wut simplement xam ne ji lu ci mu dexew daal mooy ne démocratie moom noonu la dafa lu muy laaj ah am na ku may wax ci gànnaaw ne mën naa wax xaw ma ah ma xool waaw tamit waaw waaw léegi ñaari yëpp nag ne léegi kay def na a lépp lu mu soxla lépp lu mu soxla journaliste ñoo koy doxal lépp lu mu soxla média yi la léegi média yi buñ dajee fii ne nañu libéré kii loolu am na solo kon léegi ñu ngi leen di soxla jaageen jëf jaageen jëf jaageen jëf Babacar Touré dañ wax na ji lépp lu dal benn journaliste dal na journaliste yëpp léegi lu dal benn journaliste dal na média yi lu dal média yi dal na démocratie kon nag loolu lañ ci wax nañu ñu ngi leen di sant bu baax jaageen jëf leen seen bopp lenn rek laa leen bëgg a mooy le combat continue libérez les otages libérez libérez bi est vraiment démocratie Sénégal di gën di jëm kanam donc sans plus tarder déclaration bi dama koy tënk ndaxte suba ba léegi ñu ngi ci préparatif bi yéen aussi ngeen yi ñu yi ñu euh, perturbé yëpp moo tax damay tënk déclaration bi li ci des. non non yónnee naa ko dèjà euh, taskatu donc jot nañ ci. déclaration fin mars emprisonnement de Pape Alé Niang ce que les autorités sénégalaises doivent bien entendre la coordination des associations de presse exige encore une fois la libération immédiate et inconditionnelle de Pape Alé Niang dans l'exercice normal de ses fonctions de journaliste Elle rappelle au gouvernement du Sénégal que la liberté de presse n'est ni négociable ni à marchander. Cette liberté n'a donc pas vocation à être administrée par un État dont on voit ce que peuvent être les penchants des affaires présumées privées. Pour la protection c'est en mettant un terme net à cette fuite en avant dans l'agression permanente contre les libertés que les plus hautes autorités de ce pays aideraient à asseoir un New Deal dans l'espace public waaye duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg tey bu jaaree ñu xeex ba bàyyi suñu bakkan ci tali bi dinañ ko def c'est sûr d'autres fronts qu'elles sont donc appelées à exercer leur expertise si tant et qu'elles sont conformes à l'intérêt général. Tant les politiciens s'acharnent sans cesse et comme ils peuvent à rétrécir chaque jour les espaces d'expression professionnelle et citoyenne, c'est inacceptable, mais cela vaut aujourd'hui privation de liberté aux journalistes Pape Alenia et, et c'est cela que l'État du Sénégal doit entendre et accepter une fois pour toutes. Aujourd'hui, sa libération immédiate et inconditionnelle est une urgence nationale et même internationale. Libérez Libérez Libérez Libérez Libérez donc rapidement gars yi ma dëkk ci wolof et waaw gars yi ñu ngi sant bu baax seen teewaay fii et leen xamal ne rek que suñu déclaration dañ koy tënk ndax suba ba léegi ñu ngi préparé marche bi et gis nañu réussite bi mu am macha allah te ñu bëri xaar ñu ko woon. donc yéen ñi mobilisé yëpp au des journalistes des techniciens des acteurs des médias mais surtout des citoyens nous vous remercions. et le peuple a vu cette mobilisation. et gis nañu wax dëgg fa yàlla mobilisation bi ñu leen di sant di li ñuy wax mooy que ne Pape Alé Niang du ñu nangu état bi téye ko otage et loolu dafay jeex ak ñiy téye ci kaso bi yëpp ñuy ay détenus politique et li ñuy am pour wax mooy que ne état bi fexe na ba jàpp Pape Alé daal di koy wutal lay pour tëj ko ndaxte au départ ñi ngi doon wax rapport interne bu gendarmerie waaye gis nañ que ne teg nañ ko fële andi yeneen i chef de d'inculpation yoo xam ne dara taxawu ci prétexte boobu nag duñ ko nangu. ndax bu ñu jógee ci Bambaale ñi ngi jëm si ñun ñëpp donc tey journaliste yëpp ñi en sursis muy tey muy suba muy fii ba 2024 ku nekk mën naa dugg kaso du ñu toog seetaan nag moo tax ñu commencé tàmbali rek euh, xeex bi te leen ne tey jii nii la première bi jeex bu ko jaree ñu dem deuxième phase bu ko jaree ñu dem troisième phase bu ko jaree ñu dem ñu bàyyi dara waaye nag ñu leen di xamal ne ñu leen di xamal dinañu jéem fexe tuur négocier def tuur bu Pabaale génn et bu génnul du ñu takkal mobilisation bi bu génnul du ñu bi gars yi leen takk leen daal yi ngeen waajal te xam ne fii muy génn fii ba bañ koy bàyyi dinañ def di marche dinañ si tin et dinañ seeti ambassades yi def lépp lu ci war en tout cas di leen sant leen gërëm ci mobilisation bu am solo bi libéré Libérez libérez libérez libérez jaajëf gars yi kon man la ñëw tas bi ñëpp dañ leen xamal ne